déguerpissement la du fi guléet ci digënté mairie ak jaykat ñom ñi li di daan seen doolé ci marché gël tapé jano ak jun taxaw tem ni duñu puus maître dañu tok ba aljuma samedi bu ngeen génnul daañu daana bagage kéro boy bu ñëw dima ko fi fii la ma ci buntu place waxna ko Ousmane doy mané ko bala nga daane sa place man da nga jël sa bakkan wala ma jël sa bakkan nga do daane sa place toj nañu parti A genn wàll gi toj na toj nañu parti B donc ñom dañu wala a parce que mënuñoo toj genn walu marché di fa bàyyi genn wàll mënul nekk suñuy toj marché bi yépp la ñuy toj tabax ko R plus 5 te du ñaari nit wala ñetti nit ñoo ñuy bañ a permettre loolu dinañ ko def incha allah ndegam yàllaa ngi fi yonent baa ngi fi dinañu toj seen cantine yooyu dinañ ko tabax. su fekkee nag juguñu ñoom nii. dañu jug par force. góor gi di wuyoo ci turu Ibrahima Ndiar ay atam toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar mu gànnayoo ay këyitam yu leer di xaar nguur. indi gërë fukki at ak juróom-ñett doon fa liggéey France Italie ba mënatuma liggéey sama doole mayituma ko man ne li ma am naa ñibbi Sénégal pour réaliser fa liggéey yor sama njaboot li ma am parce que ne bokk saa mbokk ñëw jënd sama place ay millions topp fi liggéey di fay samay droit di fay sama patante di fay sama joti di fay sama lepp di balé sama bop sama buntu place ñu xey xey aljuma samedi bu ngeen génnoon daañu daane place ci ni wala ci na lam motax ñu ne dañuy daaneel place. ñom neena ñu dañuy defaraat marché bi te buñ ne dañuy defaraat marché bi ñom neen ñu autorisation autosuffisance dong lañ amone légui bi bokku ci a bokku ci ñu ñew nak légui daane sey ba paré new ne bébé tan ci dand bu ci doon and ñu yëgal ñuko jox ñu formation yu wër jox ñu kay kay du lèr na xamni li ci la and kon kenn waxatu ko mais defuñu ko bi nga nee jël sama doom ticket maa ko bul jël ticket kayit yi wër laa amee sans parce que samay kayit nga ma téye mu ne ma demal per ca ma ne ko du ma dem ca bureau bu ñu ma soxlaa nañ ñëw fekk sama dañu wax condition yu wér ndax ay kayit lañ yore tubaab kayit la xam xamul demal ca pële rek jël numéro bu ëllëgee kan ngay jooy kan toppi saykat koo koy présenté. li waral coow li ak xët-xët bile nag kii lii di Alioune Badara Samb moom it di jaaykat ca marché ba di ci indi ay leeral. fii moo nekkoon marché bi. waa xam nga fi mooy marché Gueule Tapée marché Gueule problème bi amoon moo doon dafa am ay parti dafa am parti A parti B parti C parti D parti japonais ak tablier yi benn problème moo fi amoon mooy parti C moo nekk nii. lii nii moo doon 142 cantines. moom fi ñu toj nii. waaw fi ñu toj nii te waxuñu woon sax toj dañoo waxoon ne dañ koy réfectionné maanaam dal yi la ñuy wàccee dalewaat ko loolu la ñu waxtaanoon ba juboo léegi bañ demee ba ca biir ñu mujj toj partie C boobu di deux cantines ba arrêté bi mi ngi ñun ñu téye arrêté bi après dinaa leen ko woon ngeen euh, cent quarante deux cantines la. léegi nag ñoom suñ demee ba bëgg cee boole yeneen partie ci marché bi. su boobaa xanaa danañ discuter ak euh, borom place yi parce que suñuy place dañ koo jënd ci xaalis bu bari moom ko kon book lu luñ ci bëgg a def danañ ci waxtaan ak ñun bañ déggoo mais tey ma defaral la par force amul fenn ne ñun euh, suñuy cantine kenn du ko toj ci noonu maanaam toj nii rek te dara leeru ci moom kay dañuy man discuter ci lu leer nañ ñu won sun avocat su ko leeree ne lii leer na ñu soog cee ànd mais su dul loolu suñuy place kenn du ko toj wala sinon su leen arrangé wul ngeen dédommagé ñu kenn ku ne dem gis nga yii ñu toj nii eh, ay cantines yu dëgër la woon nekk parti be seeni borom plus de vingt ans nekk nañ fi mësuñoo lakkale luy nuroog lakk sax jegewu leen ñoom la ñu yóbbu bërki démb ci kaw pont bi place yi ñu leen yóbbu place yi soo ñëwee këdd nii bunt bi ubbeeku defarul luñ leen sax place yu baax ba pare ñoom bokkuñu ci woon ñu forcé leen ñu jóge fi dem ci kaw pont bi ba pare te lañ leen defaral dara baaxu ci fi mu ne nii moo waral euh, dimanche passé euh, am na ci ñoom luy tolloog dix personnes yoo xam ne si seni i place dafa lak ba sen marchandise génne wuñ dar kam mo ñew di defarat cantine manam kan mo def li nga xamantene mo ngeen ci coow responsabilité bi mom maire bi la Ousmane Ndoye du kenen Ousmane Ndoye la parce que moy maire Gueule Tapée Fass Colobane manam mom mo yor responsable responsabilité bi yépp ci ay kàddoom jëli nañu ci ni benn patch ci marché bi manam partie C gannaaw ba wa protection civile di ñoñé di sam karangi askan wi amalé jangat daldi xamlé ni patch bobulé dañu ko wara daanel tabaxat ko ndax ndax yàqu-yàqu ya ca am waaye li leen metti dañoo far bëgg a toj marché bi yépp kile di meeru fas Gueule tapé ak koloban moom lañu joxoñ baaraamu tuuma gannaaw bañu ñu seet mairie bi fekk ñu fa maire ba waaye amal nañu waxtaan ak adjoint Wom moom Babacar Diop di weddi bépp tuuma. ok très bien donc avant de démarrer nous avons reçu dañu jot benn këyit. kayit boobu buy firnde la ni marché bi dañ ko war a toj te kooku ay service su état bi ñoo ko def muy protection civile mairie bi bokk ci protection civile képp kuy tabax sa kër su teguwul ci yoon ñoom ñooy ñëw gis ko daaneel ko loolu mooy premier chose ñooñu ñoo dem ci marché bi gis ni mi ngi daanu ci kaw nit ñi man mii di wax ak yéen évacué naa fa ñaari nit ñoo xam dañ fa am mairie en charge. parce que ñoom seen problème mooy su 1500 di yeewoo di fa 3000 personnes ñu ngi génn Médina ak Nous avons di dugg te lu dal ñooñu ñooñooy gaañu Nous seetaan loolu bu muy dal seen kaw ñu mairie bi jëlul responsabilité le loolu la jël responsabilité la jël di marché bi li am ba am pop euh, propriétaire u cantine yi dañu d'accord si ñu toj marché bi defaraat ko delloo leen seen cantine te du ñu fay dërëm ñi d'accordul mooy ñi nga xam ni ay locataire lañu te suñu tabaxee marché bi yaakaaruñu ni dinañ dugaat si marché bi parce que amuñu fa cantine loolu mooy wax ci ñoom nag marché bi képp ku fa mës a am cantine jënd ko cent 815 000 nga ko jëndee pas de porte lañ la jaay jaay ñu la terrain. de porte à 815 000, ça fait plus de 30 ans C'est mooy dëgg ñi am cantine d'accord nañu ni suñu le marché bi ba pare nañ leen delloo seen cantine te duñu fay nous loolu nous avons wax ak président comité de gestion bi avons nous wax ak ko mom comité yi fété ci marché geul bañu ko wowe téléphone ngir boo mu mënoon rek dëggalal wala nga wax ma ne wax nga ak ñoom wala waxoo ak ñoom ci problème bi. waaw ñoom ñoom wax nañu ak ñoom ñoom ñoom wax nañu ak ñoom dañoo bëggul toog wax na wax nañu ak ñoom. waxtaan nga ci ak ñoom. waaw waaw bu ñu la moom document yëpp ah moo ne ah. comme que yow dëggal nga ne rek amoon ngeen. waxtaan waxtaan am na protocole am na lépp am na. waaw. am fi dox nañu ko lu mat un an. Mhm. waaw fan. waaw ñoom ñëpp xam nañu ñëpp benn problème ndax bu ñu nangu si képp ku fa amoon cantine danañ la ko delloo fa amoon tàmpa nañu ne ko ak ak préfet ak promoteur nag ci ñu ñu jot yëkkati nag am na ñu ci toxal ci ay cantines yu bees fi léegi ñuy tabax fa ñu leen jëlee waaye ñoom ndogal daldi di dal ci seen kaw am ñu ci am yàqu-yàqu yu bari. ubbi na waaye du mën a jaay ni ay moroomam mu ngi sëngéem jaaxle ak ñàkkum pexe ñu koy liir ci xar kanamam Khalil Sarr moom mile kenn la ci ñi lakkle. bi daal bi mu jëlee cantine am na ju pare am na ju parewul

bon dafa lakk daal waaw. waaw parce que daal fu mu fu mu jógee ci courant bi daal la ñuy dégg waaw bi ñu ci duggee ci courant bi ñu ne courant bi moo ko lakk bon man xaw ma waaw. lu toog ay 4 millions et millions quelque li ma lakkale fii man na 4 millions et quelque. waaw ñooñu foo jëlee daal di ñëw tabaxal bopp fii dañu ñëw ñëw leen buñ ba paree ñu xool si seen cantine bon bu ñu paree nag lii moo ci lii moo ci topp waaw. biñ leen yëkkatee fañ leen yóbbu. foofa maanaam dadul yóbbukaay ndaxte kanaalu gëltappe bi kanaal bi même su dañ ko defar ba mu bees tàq du woon ñu yoon ñu fay tegi cantine waxumal na kanaal loo xam ne si day yëngatu boole ko kanaal xam nga composition bi ci suuf lim composé lépp nga xam ne loolu loolu rek bomb la nga jël cantine fer teg ci eh, jël courant def ci jant bi ñëw di ci tàppe yooyu yëpp ànd nekk ci benn environnement

loolu tàkk ñoom ñoo ko taal. coow li nii la tëddee. yëkkati nag dinañu ko def commerçant yi li di jaay ci marché Gueule Tapée gannaaw bu ñu sukkandikoo ci kàddu ko adjoint au maire naam sax waxtaan am na waaye mel na ni ñàkk déggoo moo waral li lépp xanaa rek ña ko sekk lëkkaloo waat ci mbir mi ba askan wi yépp mën ci gis seen bopp.